mais ñoom li ñuy def tey accusé ba am nañu ay preuve d'abord fu ñuy war a mën a jëlee preuve yooyu mais je ne dis pas que amuñu ko waaye fu ñu koy jëlee man jaaxal na ma li ci mënti am mooy def nañu euh, Benno Bokk Yaakaar jàppale leen ba ñu teg commission d'enquête parlementaire bi waaye mais commission d'enquête parlementaire bu paree liggéeyam day rendre compte le le président de l'Assemblée nationale. non non non on on ne défend on ne défend ñun ñun chef se passe sachant bien que nag et di exiger que les élections am le 25 incha allah parce que ñun xam na ni nous nous allons gagner incha allah le 25. ñooñu may loolu prérogative yooyu ñu koy doxal dégg naa sax ñiy xas assemblée fan la ab député mën a woowee conseil constitutionnel fan la ñun lu ñu def dañ koo teg ci li yoon may ñu doxal ko bu mat sëkk léegi lu loolu di jur nag dépendul ci ñun du ñun ñoo gérer réew mi du ñun ñoo yore mbirum réew mi. Ah, jàppale bi xamul sax ñun dégg mu ñu ñor ak lu leer parce que bu ñu waxee nii bu xaw jiixi jaaxal ki euh, xelu xelu sénégalais yi bon mun na président mun na ne par exemple samay député jàppale leen ndax ñu ñu setal li li li ñu bëgg wax sama sama kii sama sama juge sama conseil le conseil constitutionnel donc si cadre boobu mun nañ ko jàppee loolu mais leneen lu dul loolu man dama ne amul dara gisuma dara lu mun bloquer élection yi parce que amul dara lu fi xew pays baa ngi fonctionné normalement institution yaa ngi fonctionné normalement Sénégal mu ngi am jàmm am ñu benn menace extérieure